à partir de journée Taïbi, bi ku à partir de Nayemi Ousmane Sonko amal légui ak ay ministre am képp ku à carte ci Sénégal sa tas parce que mon Ousmane Sonko bo dégloo discours discours bi daf trahir parce que ñaari mots yu presque 30 fois moi manipulation ak mensonge manipulation maquillage mensonge et il dafa am lu muy traduire ci subconscient qui kiy wax il ne la muy wax la mu ci jublu objectif bi am mom lay répéter wat Tu ci subconscient wa loolu le bëggoon wax wax naa ko nee naa campagne déguisée le campagne électorale la ñu commencé pour législative yi yàgg naa leen wax ne mbaqat la parce que mbaqat moom mooy jàdd ci koñ bi yor xeer ba noppi di la woo ngay ñëw pour mu fëgg la ko jël nañu seeni document conseil constitutionnel jox na leen ko ñu denc ko ba waxtu mumulen mu leen neexee ñu doog a opposition bi def seen

problème mu sénégalais yi mu jublu ci malheureusement document bi nga xam c'est wax na ko ne la jàpp ne stratégie nationale de développement bi mu ne dana jëm n'y ak deux mille fi fekk ku tak ci mom sax du ko fi fekk parce que sénégalais yi dinañ len balayer ci élection législative yi ñu jëm sénégalais yi dinañ tek ci réew mi ay nit ñoo xam ne xam nañu nu ñuy dajalee dërëm ak tànk pour defar Sénégal ci document bi nga xam ne jot naa ci parce que man document bi jot naa ci ça fait presque une semaine mais bi ma ko liiree ànd ak les cadres bi ñu ci waxtaanee on s'est rendu compte véritablement que c'est le PSE de Macky Sall. Il n'y a que les terminologies et les chiffres qui ont changé. Manam terme yi lañu tout tur yi lañu soppi ak yenn ci ay lim chiffre mais bo xolé ba ci biir mom limuy wax maquiller ñom ci sen bop ñom maquiller chiffres yi ma gis man ci biir document boobu dégg ko muy wax né wuy ñi fi nekkoon dañu sàcc alalu réew mi waay waay waay waay waay Ousmane Sonko dañu la fal ngir ñi sàcc alalu réew mi nga bàyyi leen ak yoon yoon rëq seen ndigg danaa dal ci sa kaw danaa dal ci sa kaw soxluwu la yuuxu dalal ci kaw gaay sénégalais yii ma jàkkaar lool xam nañu amuñu benn yërmande ci ku sàcc alalu réew Et j'ai adoré l'attitude du ministre de la Justice. J'ai adoré son attitude. Qu'il faut le, qu'il faut na ko ne kai kaay toog ci ndaje mi mu ci ndaje ministre de la justice bi Ousmane Sonko joxoñee ay nit ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw la mu wax dafa ne ko Enfin en présomption d'innocence C'est une attitude responsable parce que man ma ce pays a besoin d'hommes de valeur le Sénégal a besoin de personnes engagées Il ci pour nous Pour changer Sénégal bu ngeen bëggee ñu àndandoo ci lu defar réew mi nañu wéeru ci dëkk document bi ñu présenté sénégalais yi tey gàcce ci sénégalais yi am chers compatriotes c'est pas un document de 126 pages buñ ñu présenté tey mel ni kuy luxus tanaan danaa def nangam danaa def nangam yow digué nga digué digué digué digué ba nit ñi jox la réew mi juróom benn weer nga continuer di digué ñu jëm ci ay élection ngay waajal sénégalais yi pour di leen wax ne am na ay digué yu bees yu ma bëgg a def waaye laata loolu il faut chiffres yi fi nekk les finances publiques ma assainir ko mais oui finances publiques yi dañ ko war a assainir suñu alal la

mooy liñ ñu digoon ci wàllu njëg yi te boobaak léegi mënuñu ko matale njëg yooyu la ñu bëgg mu wàññiku njëg yi dañ ñu digoon ne day wàññiku njëg yi wàññikuwul yéen a ma ko gën a xam njëg yi tey la gën a yokk ceeb non parfumé tey la gën a yokk diwliñ tey la gën a yokk bërki démb sooda dafa dugg ci sama bureau ma dégg ko muy wax ak kenn naan ko nenu baxal cent cinquante la mané ne ko nenu baxal 150 cinquante 150 125 ma lañ koy jaayee xawma nangam nangam buñ ko baxalé def ci euh, euh, saf-safal yeeg ñomine sen buñ la ko jaayee 150 la alors ça veut dire tout simplement que les Sénégalais mais sont fatigués parce que bu fekké né la nga doon dundu demb tay ji nga amone yakar la nga doon dundu gëna yokku mais ça veut dire tout simplement que ñi fi nek ñoo indi situation bi réew mi dund dégg naa moom le premier ministre Ousmane Sonko ci ay projection man dama mus bokk ci ñuy wax ne croissance kenn du ko lekk croissance bi wóor mooy croissance bi ngay lamb sa poche. faj sa soxla bu la wóoree ne boo dugalee sa loxo sa poche. di nga mun a sa soxla c'est ce croissance bi sénégalais yi malheureusement depuis six mois les sénégalais ñu ngi le diable pour lui tirer la queue Aujourd'hui, la sénégalais yi plus a Aujourd'hui, tey le sénégalais yi gën a ma am njàqare parce que si wax nit ñi ne leen dinaa soppi seen dund moom moo waxoon ne en deux mois va changer Sénégal tay premier ministre bi dajale ñenn ci gouvernement ma dégg ko muy wax mu ngi teg xel sénégalais yi xam nga lu mu leen di waajal pour que ngeen ubbi seen bët te xam ne weer yi ñëw mooy gën a metti man ki ma dégg mu wax mooy sénégalais yi préparé wu leen te ci biir wax bi sax wax na ko nee na danañu wuti solution yi ensemble waxuñu ko ensemble moom la ñu sas moom moo fëgg dënnam ànd ak ñi mu àndal ñu wër Sénégal di fen mu ànd ak ñu koy fenal ñu déggoo seeni fen moom mu dàq leen a fen ba ñu jox ko réew c'est ça la ba ñu jox ko réew mi kooku ñu jox réew mi tey moo ñëw taxaw di leen wax ne ñu jox réew mi koku ñu jox réew mi dégg na la nga ne mu ngi ñaaw na mos koku ñu jox réew mi koku ñu jox réew mi mo def projection ci suñu croissance dé dégg ngeen limu wax dégg ngeen chiffre bi mu wax nee ñaata la jëme croissance au Sénégal 6.5 Macky Sall mi nga xamné ne mo la 2014 la défon 6,5%. 2014 la défon 6,5%. mom pour Ousmane Sonko ñu fal pour mu Sénégal nous ñëw néna ñoy daf ñuy alors que réew mu am pétrole réew mu gaz nit ñi une projection de 9,1% ou de wala FMI bi mu fi fan FMI bi mu ñëwé digënté juin juin bi passé la ko yobuko 7.1 ko 7 point bi mu dellu ci waté ñom wa FMI gis né digënté juillet ak septembre réew mi nërmeenu na économie bi dématul nit ñi jaxlé nañu nit ñi secteur économie bu bari dafa daanu FMI a di koy revoiraat 6.1. ko 6 point 6.1 Ousmane Sonko nee croissance au Sénégal dana ko mom moom ci ma fàttali 6.5. ni signature mi ñu fi jëlee yóbbu Sénégal ci atum 2014 kon ngeen xam Ousmane Sonko digguñu yokkute Ousmane Sonko jeune, yi Ousmane Sonko li mu leen dig mooy deltu ginnaaw Ousmane Sonko li mu leen dig mooy ay nit yuy làmbaatu Ousmane Sonko li mu leen dig mooy xam-xamu cuune et loolu taxaw nañu ñun pour lui barrer la route